أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي عندك ينتي كتاب التوحيد di jeexal tey première partie bi ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala tey mooy nekk sunu dars ñaar fukkeel ak benn ci buntëb xatta iza fuzia an qulubihim darsu tey bi day topp ci bii passé ba tey ñu ngi jàng màggaayu yàlla subhanahu wa taala ak darajaam ak rëyaay ak kattanam moom borom bi subhanahu wa taala sunu importance su dar su tey danañ jàng ne war na leer jullit azamatullah màggaayu yàlla sunu dar su tey jullit bi war na cee jàng màggaayu yàlla subhanahu wa taala waaye war na cee jàng yayoo gi mu yayoo jaamu moom yàlla tey ñëpp war naa leer ci ñun ne yàlla dafa màgg waaye war naa leer suñu bopp tey ne yàlla rekk lañu war a jaamu jaamu yàlla rekk moo ko moom kenn amu ci droit ñaareel mooy jullit bi war naa jële ci hadis bi ñuy jàng tey ne ragal yàlla subhanahu wa taala lu war la ñetteel mooy jullit bi war naa jële ci darsu tey bi ne waruñoo màggal waruñoo rëyal waruñu jagleel kenn lu yàlla moom benn jaam ci jaamu yàlla yi amul droit jël àq yàlla subhanahu wa taala di ko jagleel jaamu yàlla suñu tënkee ñetti mbir yi mooy nekk darsu tey mbokk yi bu ñëwee ci nas bi danañ fekk saxaaba bu màgg bu tudd nawaas ibnu samaan yàlla kontaan na ci moom yàlla gërëm na ko mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam إذا أراد الله تعالى أن يوهي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات سائقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ويكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكته ملائكتها كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل mbokk yi xadis bi saxaaba bu màgg bi tudd nawaas nee na yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moonu nettali xadis bi mu ngi ci tafsirul quraanul azim bu ibnu kasir nee na iza araada allahu taala an yuhiya bil amr bu yàlla nammee su yàlla bëggee amal benn mbir wala muy waxyu muy wàcce kàddoom moom yàlla su yàlla nammee amal dara wala su yàlla nammee génne kàddoom te kallama bil waxyi bu yàlla naree waxyu daf ko namm rek daf ko bëgg dafagu ko axasatil mala samawatu minhu rajfa da ngay dégg asamaan yi commencé di dënu di xaaju di salleeru di yuuxu asamaan yi yàlla namm rek li mu namm dafagu ko bu fekkee wax la waxagu ko comme asamaan yi xam nañ ne jamono ji waxtu wi yàlla namm na dara dañuy commencé ñoom asamaan yi di dënu raadatan shadid dënu yu tar lu tax xawfan min allahi azza wa jal ngir ragal yàlla allahu akbar loolu moo tax asamaan ak suuf bi yàlla naree jël amaanaam di leen ko dénk dañoo bañ lu tax parce que dañoo xam yàlla xoola ñun yàlla na la wax inna aradna al amanata ala samawati wal ard fa abayna an yasfiqnaha wa hamalahu al insan yàlla ne na bi ma woowee asamaan ak suuf ne leen dama leen a dénk mbir mi responsabilité bi dañoo xam yàlla moo dañu ne yàlla déedéet wala yàlla dafa namm rek bëgg wax asamaan di xaaju di yuux parce que dafa xam yàlla ñun nag comme xamuñu yàlla loolu moo tax wa xamalahul insaan doomu aadama ñëw ne cas responsabilité bi ñaari adresse la yàlla teg ci aaya bi mu ne innahu kaana zaluman tooñkat la parce que lu tax tooñkat la mooy li mu waxoon yàlla defu ko respecté wu ko jahulan ku réer la parce que réere yàlla moo tax mu jël responsabilité bi waaye ñi ko xam nanguwul olof yi nee nañ xale bu juróom-ñaari at juróom-ñetti at juróom-ñeenti at fukki at ñeme naa fekk gaynde gu tëdd muy xëcc geen gi waaye baayam yaayam parce que ñeme na ko parce que moom dañ koo xam dañoo xam lii lan la waaw ndeysaan xawfan min allahi azza wa jal asamaan day yuuxu ngir ragal yàlla di dënu dënu yu métti fa ida samia zalika ahlu samawati suiqu bu awaa asamaan ñi nekk asamaan malaaka yi bu ñu déggee yàlla di wax ñoom dañuy xëm ñoom ñëppay këpp xëm allahu akbar kon da ngay dégg ne malaaka yi xam nañu waaw asamaan mbindeef yëpp xam nañ yàlla ñaar ñoo des ci àdduna bi lu xamul yàlla ñaari mbindeef mooy sëg jinne mu ne fa isa samia bu déggee zalika loolu ahlu samawaati ñooñu asamaan mooy malaaka yi ni ñuy def yonent bi nee na suiqu dañuy xëm dañuy këpp wa xarru ñu rot lillahi sujjadan di sujjootal yàlla allahu akbar hadis bu ñu jàngoon bi passé dañu ne malaaka yi bu ñu déggee yàlla di wax dañuy xëm tey hadis bi lu mu wax asamaan day xaaj malaaka yi dañuy rot xëm daanu ci kaw suuf si jootal yàlla fa yakunu awalu man yarfa rasahu jibril kii njëkk ximmili ko ci ñoom di yëkkati boppam muy jibril alayhi salaam allahu akbar mbokk yi luy xëmloo jibril di ko daanuloo di ko sujjóotloo loolu war na nu yëngal wala waru nu yëngal waaye xoolal ñun xam ñun lu waral loolu lu waral asamaan lu waral suuf lu waral lu waral parce que ñooñu dañoo xam kan la ñu amal affaire ñun nag xamuñu ñun xamuñu moo tax da ngay jàng ci alquran yàlla mu ne wa ma qadarullaha xaqa qadrihi nit ñi li ñu waroon màggale yàlla dëgg dëgg defuñu parce que xamuñu ko xamuñu ko nit ñi li ñu xam la ñuy màggal tey président de la république bu doon tëll fii nu ñuy def dañ koy màggal gis nga armée bi gis nga ministre yi gis nga député yi bu président ne tëll seen kanam lu ñuy def dañ koy màggal gis nga policier bi sax bu bu montee garde commissaire romb ko nu muy def day taxaw daal di tóoj parce que dafa xam kii muy kii kan la da koy màggal ñun nag wallahi dañoo xamul yàlla looloo tax mënuñu màggal yàlla xamuñu ko xoolal lii yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax mu ne awalu man yarfau raasahu jibril kii njëkk a yëkkati boppam mooy jibril fa yukallimuhu llahu min waxyihi yàlla daal di wax ak moom li mu bëgg a wax ak moom waaw fa yukallimuhu llahu yàlla wax ak moom min waxyihi bi ma araada li yàlla namm li yàlla bëgg mu daal di koy wax ak jibril daal di koy programmé su ma yamuru jibril alal malaayika léegi nag jibril départ na war a joxe ji mission bi li yàlla bëgg noonu li yàlla doon wax jibril départ na pour exécuter ji ko pour defi ko waaye jibril ku lama marra bi samain jibril saa yu rombee benn asamaan saalahu malaikatuha malaaka yi nekk ci asamaan boobu dañuy laaj jibril ne maaza qaala rabbuna ya jibril eh yow jibril lan la yàlla wax lan la jibril tontu fa yaqulu jibril alxaq qaala alxaq yàlla dëgg rek la wax dëgg alxaq allahu akbar wa huwa al ali al kabir su ngeen fàttewul phrase bi bokk na ci dars bi passé maaza qaala rabbukum lan la seen borom wax qaalu alxaq jibril malaak asamaan bu mu romb depuis septième asamaan ba asamaan bu mujj muy juróom-ñaar asamaan bu ñu ubbi bunt bi jibril di romb malaaka yi dañuy taxaw ne ko lu yàlla wax mu ne leen dëgg fa yaquluuna kulluhum ñoom malaaka yépp ñu ne misla ma qaalal jibril ñu tontu comme jibril lu mu wax alxaq wa huwa al aliyu lkabir nee na fa yantahi jibril bil waxyi jibril dem yóbbu wax yu wi ila xaysu amarahu llah li yàlla namm fi ko yàlla bëggee jibril yóbbu foofu mbir yi kon ñi naan jibril dafa juum yonent bi warul woon nekk yonent diw moo waroon nekk yonent jibril juum yóbbu message message bi fële kon ñooñu lan la ñuy tontu hadis bi lan lañ leen di tontu ku toll ni jibril yàlla dina ko yónni muy juum ah yàlla dina tànn mbindeef tagg ko ci kàttan tagg ko ci dal tagg ko ci mat jox ko mission bu toll ni mu nekk digganteem ak yàlla ba pare kooku di juum yàlla ne zi quwatin inda dil arsh makinin muta thamma foofu ci yàlla yàlla mu ne amiin kuñ fa wóolu la ba pare kooku di juum ñun kay ñun ñoo juum mbindeef yee juum waaye kooku juum parce que yàlla moo ko tànn ñun doomu aadama yi ñun ñoo juum mbokk yi buñ ñëwee ci maana dars bi anasiru dars élément yi danañ fa fekk ñetti mbir bu ci njëkk mooy xawfu samawaati min allahi azza wa jal asamaan yi dañoo ragal yàlla asamaan loolu moo tax asamaan bi mu déggee ñu ne yàlla am na doom ban réaction la asamaan def yakaadu samawaatu yatafattarna gis nga lu tax parce que dañoo xam ne li ñuy wax du dëgg ñoom dañoo xam yàlla moo tax bi ñu déggee doomu aadama yi di accuser yàlla asamaan dafa xotteeku yàlla mu ne asamaan xaw naa xotteeku lu tax xawfu samawaati min allahi azza wa jal parce que asamaan yi dañoo ragal yàlla asamaan mbindeef la yàllaa ko bind moo tax bi mu ko nee nekkal ci kaw ba léegi asamaan mustawaaj parce que loolu la ko yàlla bindee allahu azza wa jal mutafarridun bil azama wal jalal yàlla subhanahu sunu boroom moom dafa wéet tundum ci màggaay ak réyaay màggaayu yàlla ak rëyaayam kenn fekk ko ci amul ku màgg bañ koy dendaleeg yàlla amul ku rëy ku sell bañ koy dendaleeg yàlla abadan lu tax yow mbindeef nga sunu boroom moo la bind kon mënoo mel ak moom mënoo niroog moom doomu aadama yi nag ñàkk xam bi ñu ñàkk xam yi loolu moo tax ñuy jaawale yàlla ak yaali mu ne wa jamii ma fi lkawni xaadiun la mbooleem lu nekk ci àddina bi dafa toroxlul yàlla lu mu mën a doon lu mu mën a doon nag laa wax lu mu mën a doon wala ma ne ku mu mën a doon dangaa toroxlul yàlla subhanahu wa taala wa jamii ma fi lkawni lépp lu nekk ci univers bi bàyyiwuma lenn bàyyiwuma kenn ñépp dañoo toroxlul allahu subhanahu wa taala fa ida takallama bima shaa min an waxyihi fi jamii al umur allati yaqdiha tusibu alsamawati min kalaamihi rajfa mu ne sunu borom subhanahu wa taala su nammee wala muy wax lenn ci kat doom wala lenn ci ay mbiram mu bugg ko def bugg ko wàcce ci suuf asamaan dafay rot asamaan day sab asamaan day baajaw di yëngatu ndax màggaayu subhanahu wa taala allahu akbar lu ko waral mooy asamaan dafa xam yàlla bindeef yi dañoo xam yàlla moo tax bu yàlla nammee dara ñoom dañuy tiit di baajaw lu tax parce que dañoo xam borom bi subhanahu wa taala mbokk yi wallahi xool leen quartier quartier am na ci yéen fii ñu mus a dem ñu mus a def armée am na ci yéen ci yàkka yi ñu mus a def armée ñooñu bu leen seen seef yi woowee ñi nekk ay ay nekk ñu bees amuñu grade bu leen grade yi woowee wala ñu romb leen wala ñu sant leen benn liggéey ni ñuy def dañ naan noo xaw ma jot ah danañu xaw ma jot allahu akbar yenn saa yi sax ñu ne la dama nga taxaw fee ci naaj bi nga yendu foofu dangay dem taxaw doo naan doo fi taxaw naan naaj bi daf tàng tey sa papa bu la ne woon dama nga taxaw fee ci naaj bi loo koy wax waaw papa déedéet daf tàng doo fi taxaw waaye ñooñu bu leen seen chef bi waxoon dama nga taxaw dañuy taxaw xoolal mbindeef moom ni mu déggalee mbindeef mii léeg-léeg nga dégg sax ci Sénégal ñu ne sëñ diw ku mu ne dugal ci teen da ngay dugg ci teen allahu akbar doo laaj da ngay door a dugg ci teen bi wala du ngeen dégg loolu su la ma kaay la ma rey la da ngay ñëw ñu rey la ndeysaan lu tax parce que fi ñu ko teg waaw lu tax yàlla bu santaanee kenn du def lu tax asamaan di tiit bu seel bu yàlla santaanee lu tax suuf di tiit bu yàlla santaanee lu tax malaaka yi di xëm bu yàlla santaanee te doomu aadama bu yàlla santaanee du yëg dara ci yaramam su ko waral mooy ñee dañoo xam yàlla ñun xamuñu yàlla ixwaan yi mu ne da ngay dégg aw raadatun shadid xawfan minhu subhanahu wa xaybatun la mu ne da ngay dégg ay dënu asamaan di dënu ngir ragal yàlla subhanahu wa taala ngir màggaayu yàlla mu ne wa haza dalilun sarihun ala anna samawat tasmau kalam allah nee na lii dalil bu leer la ne asamaan day dégg ni ngay déggee mbindee fii ci kaw suuf yëpp dañuy dégg te dañuy wax waaye ñun ñoo ko dul dégg léeg-léeg nga dégg ginaar di korok koki nga yaakaar ne day korok koki wala xar di mbee wala mbaam di ngaax wala wala picc di sab wala mboot waaye ndeke day wax lu tax sunu borom nee na tusabbihu lahu samawatu saba asamaan yi juróom-ñaar dañuy sàbbaal yàlla kon dañuy wax waman fiihinna ak ñi ci nekk dañuy sàbbaal yàlla ñi nekk ci asamaan yi ak suuf si wa man la wax de te man ismu lan la ñu jàng arab ismu mawsul lil aqil maa la ñuy wax lu amul lit suñ doon wax lii dañ naan ma ha za ma haza est-ce que amul xel suñ doon nit dañ naan man haza man pour ku am xel la yàlla lan la wax ci aaya bi tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ard mu ne wa man fihinna dañoo amee xel kon ndeke asamaan ak suuf lépp lu fi nekk day sàbbaal yàlla waaye yéen yàlla yemul foofu de mu ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura yàlla nee na amul wa in min shay'in la wax amul lenn lenn lenn lenn ndeke portable sax ci la bokk lenn wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi lu dul mu ngi sàbbaal di sant yàlla wa in min shay amul dara loo gis ndeke mi ngi sàbbaal yàlla mais yow yaa comprendre waaye gis nga yàlla li mu teg ci aaya bi suratul isra aaya 44 mu ne walakin waaye yéen la tafqahuuna tasbihahum yéen yéena dul comprendre tasbih bi da ngay dégg mbaam mi ngaax nga naan day ngaax fekk mi ngi sàbbal yàlla nga dégg ginaar gi sab nga defa ne dafa sab fekk mi ngi wax yaa quddus yow ko selle gi ndeke day sàbbal yàlla am na yenn téere yoo xam ne dañ lay wax lenn lu nekk ci ñoom nu muy sàbbale yàlla baat bu baat bu ko bu muy jël di ko di ko zikr ci rab yi da ngeen Suleymaan moom dafa déggoon rab yi seen kàddu mus naa wax sax ak benn xorondom jàng ngeen ko saar boobu muy suratu suratu naml sunu borom subhanahu wa taala wax nañu ci téeréem bi ci suratul isra aya 44 mbooleem lu mu mën a doon ci asamaan ak suuf day sàbbal yàlla lu mu mën a doon la wax lu mu mën a doon day sàbbal yàlla waaye yéen yéen a comprendre mbir yooyu nu ñuy sàbbale yàlla mbokk yi loolu mooy tomb bu njëkk mooy fa ida kanat alsamawatu alazima tudrik azamat allah wa taxaafuhu wa hiya jamadat fa kayfa la yaxaafuhu alinsan addaif almiskin allahu akbar bu fekkente ne asamaan yi ak seen màggaay ñoom ñoo xam màggaayu yàlla subhanahu wa taala ragal ko te ñoom jamaadaat lañ loolu ñu naan jamaadaat mooy lu amul ruu kon fa kayfa laa yaxaafu insaan kon doomu aadama bu néew doole bii mbindeef mu lott mii mbindeef bu doyadi bii kon lu tax moom du ragal yàlla su fekkee montagne yi dañoo ragal yàlla asamaan dafa ragal yàlla suuf dafa ragal yàlla ndax màggaayam lépp lu ci kaw suuf kon mbindeef mu ndaw mii mbindeef mu tuuti mu doyadi mii nga xam ne bu bëñam mettee sax bëñ moo gën a tuuti ci moo gën a tuuti ci ci ci cëru doomu aadama bëñ walla am na lu gën a tuuti bëñ ah am na cër bu gën a tuuti bëñ ci nit loxo ak bëñ lu ëpp loxo bët ak bëñ la ëpp bëñ ak bakkan la ëpp kon yaramu doomu aadama lu ci gën a tuuti bëñ waaye bu ci benn yëngoo rek nooy def tëdd tëdd benn moo yëngu benn ñaataa nekk ci bëñ bi ci biir gémmiñ gi 32 ah benn moo yëngatu moo bënn moo am problème rek nga tëdd yenn saa yi sax doo wax bu nit ñi di wax sax bu nit ñi di lekk ginaar doo lekk bu lu ñu doon naan boisson suñu leen nii da naan loxo rek kay léegi loxo waaye lii kañ la daal nga naan loxo léegi ngay ngay ngay defee isaara xoolal moo gën a tuuti bëñ mooy gën a tuuti su yëngoo rek nga am problème allahu akbar sa dàll bi ngay sol boo solee dàll bi xeer nekk ci suuf dàll bi tegu ci sa tànk tegu ci di nga sol dàll bi ndax da nga dox lu bari mënoo dox foog nga taxaw simmi daal bi loolu mooy woon ne anta daif yow da ngaa lot yu bëri mënoo koo tenir mënoo koo résister waaw léegi nag lu tax kon nga bañ a ragal yàlla su fekkee yow mu dara xeju yàlla daraam xejul ci yow allahu akbar yàlla bi mu ñuy jox misaal ne yéen da ngeen a yambare def ñu laaj a antum ashaddu xalqan ami sama waaye yéen yéen ak asamaan kan moo ëpp doole doomu aadama ak asamaan loo ëpp doole te asamaan mu ngi nii ñemewul yàlla ñun ñu bëgg a ñeme yàlla mbokk yi inna taazimillah màggaay yàlla màggal ko wa ijlaalihi ak réyal ko wal xawfu minhu ragal ko yadfaul abd ila fili taat day tax doomu aadama topp yàlla nit su mag su màggaayu su xamul màggaayu yàlla su xamul rëyaayu yàlla su xamul teddange yàlla du ragal yàlla te su ko ragalul du ko topp li tax yonent yi li tax boroom xam-xam yi li tax malaaka yi li tax mbindeef yi yépp ragal yàlla parce que dañ koo xam li tax saxaaba yi daawuñu nelaw guddi kaanu qalilan min al-layli ma yahjaun parce que dañoo xam ñun xamuñu xoolal yonent bi mës na mës na ne Mikaayil yonent bi mës na laaj Jibril ne ko Mikaayil lu tax du ree mu ne ko dafa yaakaar ne bu ree daanee yàlla dugal ko safara jeex na ñooñu dañoo xam yàlla dañoo xam màggaayu yàlla dañoo xam yàlla mooy kan moo tax ñu ragal ko bi ñu ko ragalee lépp lu mu leen sant ñu def ko gis nga gis nga wax naa leen sànq ci quartier bi ci militaire yi ba ñu ragalee seen seef yi lu seef yi santaane da ngay dégg ñu ne armée amul question ordre buñ la jox da ngay exécuter xoolal rek luñ la jox luñ la wax defal la ngay def ndeysaan da ngay gis julli bu fa dem ñu ne ko bul julli mu exécuté ko wala du loolu mooy armée loolu nag du loolu nag du diine loolu ci yàlla rek la yàlla rek mooy joxe ndigal nga exécuté ndeysaan kooku yàlla moo ko moom ordre boobu ñuy joxe ci armée bi yàlla moo ko moom yàlla donc mooy koo xam ne laa yus'al amma yaf'al kenn du laaj lu muy def waaye yàlla lu tax ngay def lii yàlla rey sa papa ba pare nga tax naan waaye yàlla lu tax ngay rey sama papa gis nga fi mu nekk ku yàlla rey sa papa looy wax dañ lay woo téléphone allo foo nekk góor gi de wàcc na liggéey nga ne ah alhamdulilah rabbil alamin si waaw nañ sant yàlla ñu dem suuli ko ñëwaat nga dégg ilimaam bi lu muy njëkk a wax ilimaam lu muy njëkk a wax alhamdulilah rabbil alamin mbokk yi bu ñu sant ginnaaw ba nu santee yàlla gis nga kenn ñemewul taxaw jël micro naan mais dañu war a laaj explication pourquoi mu dee pourquoi ah eh mas ngeen ko dégg kon war na nu nangu yàlla lépp lu mu nu wax ñu nangu ko lépp lu mu ñu sant ñu def ko ndax yàlla du sunu moroom allahu akbar yàlla boroom la bu nit xamee màggaayu yàlla su nit xamee rëyaayu yàlla da koy ragal bu ko ragalee lu mu ko sant mu def ko waaye wa tarkil muharramaat day tax nit bàyyi lu araam ragal yàlla mooy tax nit bañ a def lu xaraam soo ragalee yàlla dootoo def lu xaraam parce que da nga xam ne lii ngay def kii ngay tooñ bu la jàppee du baax moo tax da nga koy moytandiku wa ida sakana al xawfu al qalb ahraqa shahwat su fekkente ne ragal yàlla dëkk na ci xolu jaam day lakk bànneex yi xolu doomu aadama ay bànneex ñoo fa dëkk mooy li ko neex li bakkan bi bëgg su fa ragal yàlla duggee day nekk benn bomb buy lakk bànneex yi da koy lakk ba mu jeex tàkk léegi dootoo xool yow lu la neex lu neex yàlla rek ndeysaan lu neex yàlla rek moo lay neex lu ko naqari dalay naqari allahu akbar mbokk yi ñaareelu tomb bi ci dars tey mooy xasiyatul malaika min allah malaaka yi ragal gi ñu ragal yàlla pourtant malaaka yi ay mbindeef lañ ni ñun wala ñoo bokk benn borom bokk ku ñu bind bokk fañ ñu bindee bokk luñ ñu sant mais ñoom duñu ragal duñu moy yàlla ñoom malaaka yi lan moo leen di dal mooy tus'iqul malaika inda sima'i kalamillah ñoom bu ñu déggee wax yàlla dañuy xëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nettali waa ji tukki woon ak gëléemam benn addu kalpe daal di koy dab agresseur nangu ay bagage am ba pare di ko waaj a rey bi ko waa ji ñaanee pour julli ñaari ràkka waa ji ci sujjóotam bu mujj mu daal di toroxlu ci yàlla pour yàlla musal ko ci waa ji sunu borom subhanahu wa taala bi waa ji ñaanee ñaanam gi ñaan gi dem kaw asamaan malaaka yëpp dañoo sujjóot ci kanamu yàlla yàlla yabal benn malaaka demal nga sëbe waa ji waaye gis nga malaaka boobu bi ko yàlla ne yow yaay dem sëbe waa ji fexeel ba waa ji bu mu agresseur bi bu mu rey waa ji malaaka bi yàlla yónni dafa tiit ba première yuuxu bi mu yuuxu ne waa ji bul ko rey septième asamaan la ko yuuxoo waa ji nekk ci suuf di ko dégg mu waxaat ko deuxième bu ko rey ci septième asamaan bi première bi mu ngi ci malaul ala fa yàlla nekk deuxième bi mu ngi septième asamaan troisième bu ko rey bi la taxaw ci kanam waa ji ne yow laay wax bul ko rey xam nga malaaka boobu bi ñu ko laajee waa yow lu tax nga yuuxu sa première yuuxu fekk yaa ngi ci kaw yaa ngi malaul ala ci barab yu sell yi mu ne yàlla dafa jox dafa bàyyi malaaka yëpp jox ma ndigal man buñ ko reyee dañ may dégradé moo tax ma yuuxu ba waa ji yaakaar ne damaa nekk ci wetam première bu ko rey bi ma wax ñetti yoon la malaaka bi wax ak waa ji bu njëkk bi mu ngi malaul ala septième bi deuxième bi mu ngi septième asamaan troisième bi fekk na ko ci suuf jàng ngeen malakal mawti bi mu wàccee Inde di nuyu Suleymaan baytul maqdis mu ñëw fekk benn waaye bu mu war bu mu waroon rey Inde malaaka bi dafa tiit xulli waa ji bët parce que yàlla da ko ne demal Inde léegi nga rey waa ji ci waxtu woowu mu wàcc baytul maqdis fekk fekk mu war a rey Inde mu xulli waa ji bët waa ji ne Suleymaan waxal ngelaw li mu yóbbu ma Inde kii bët yi may xool neexuma ngelaw li ne waa ji zaj ne ko cëpp ind mu fekk malakal mawti taxaw ci place bi ne ko yow laa doon xaar bi ma la fekkee baytul maqdis damaa tiit ndax waruma la fa woon fekk wala malaaka yi mu loolee mën ne ñoom du ñu mooy seen borom dañoo ragal yàlla su yàlla diglee da ngay dégg ñu ne malaaka yi am na ñoo xam dañoo am ñaata laaf yenn saa yi am na malaaka yoo xam bu yàlla joxee ndigal laaf yëpp la ñuy la ñuy muri pour naaw laaf yëpp la ñuy ubbi pour lan pour santaane yàlla boobu bu ci seconde manqué kon malaaka yi mbokk yi dañoo ragal yàlla loolu moo tax bu leen yàlla bu yàlla di wax ak ñoom dañuy xëm du ñu mën a dékk wax ci mu ne wa taxirru bil sujud taaziman wa xaybatan lahu wa xawfatan minhu malaaka yi dañuy sujjóot ngir màggal yàlla jëmmam ngir ragal ko fa yakunu awalu man yarfaa raasahu jibril malaaka yi bu ñu rotee sujjóot dañuy xaar ba jibril njëkk a yëkkati boppam mooy njëkk a yëkkati moom jibril bu yëkkatee boppam malaaka yeneen yi doog a yëkkati seen bopp yàlla wax ak moom ba pare la mu bëgg jibril def ko wala la mu bëgg mu am léegi nag jibril bu déparé pour defi ji loolu asamaan bu mu romb saalahu malaikatuha malaaka yi daal di koy laaj ne ko maaza qaala rabbuna ya jibril eh yow jibril lan la sunu borom wax fa yaqulu jibril alxaq wa huwa alaliyu alkabir fa yaquluna kulluhum misla ma qaala jibril fa yantahi jibril bilwaxyi ila xaysu amarahu allahu aza wajal min alsamai wal ard nee na bu malaaka yi laajee jibril lan la sunu borom wax jibril ne dëgg rek comme yàlla mooy dëgg lépp lu mu def dëgg la yàlla mooy dëgg mooy buuru dëgg moo tax dëgg lay amal ci dëgg la ñu bind léppam dëgg la doomu aadama kay mooy tricher mooy dugg ci lu mu xamul mooy programmer lu mu mënul lu mu xamul amma yàlla lépp dëgg la waaw xool leen asamaan bi bu mu àdduna bi bu mu amee ba léegi bu fekkoon ne du dëgg fekkoon ne asamaan binduñu ko ci dëgg suuf binduñu ko ci dëgg géej defaruñ ko ci dëgg jant bi defaruñ ko ci dëgg weer wi defaruñ ko ci dëgg doomu aadama yi binduñu leen ci dëgg kon léegi ngeen gis soppeeku waaye dëgg lépp dëgg la lépp programme la boo xamante ne ci dëgg la lalu doomu aadama yi bu ñu amoon doole ah ba mën a xam yàlla fu mu nekk moom mooy kan danañ ko fekk fa mu nekk loqarte ji ko rey ko falu palaasam waaye nag yàlla mooy yàlla jox nañu misaal sax ne jox nañu misaal moom yàlla subhanahu wa taala mu ne law kaana fihima alihatan bu fekkoon ne am na yàlla yu daam ci kaw suuf ci kaw asamaan luy xew ñaari yàlla bu ñu amoon ci kaw asamaan luy xew dañ jékki-jékki rek gis kënu yu commencé bomb yi commencé wadd ci suuf bu ñu ne la ñu ne yàlla ci kaw ñooy guerre wala ñaari puissance rek ah ñaari puissance ci àddina bi luy xew fi mu nekk nii xoolal Syrie Bachar al-Assad mi ngi rey jaam yàlla yi fa nekk Amérique di tere Russie nekk ci ginnaaw am na ko defal lu la neex ak Chine gis nga puissance yu bëri lu muy lu muy indi da ngay dégg sax ci fii ci àll bi ci benn teen ñu ne la ñaari kuy du ñu naan ci benn mbalka lu tax bu ñu fa fekkantee rek lan la même àll ñaari gaynde duñ fa nekkandoo buur il faut benn rey moroomam doog a toog buur bi nag mun na ko nekk buur bi ah kon nag loolu dafa war a leer ci ñun ne yàlla mooy yàlla subhanahu wa taala kenn du yàlla ku dul moom comme mooy yàlla nag kon moom moo mbir yi moom lañ war a jaamu moom lañ war a defal lépp subhanahu wa taala waaye nag tawhid boobu tey moo leerul ci jaam yi ba ñu foqarte lenn li yàlla moom jox koy jaami yàlla waaw bu yàlla santaane kenn du def da ngay gis ku dul julli fajar te bu ñu wootee bay fu sore sori mu ne dund dem dee dem wala bu sëriñ bi wootee liggéey ñépp daw bu yàlla wootee giñ gis kenn kat mooy yàlla foofu yàlla bu wootee kenn du wuyu su yàlla diglee kenn du def bu nit ñi diglee nga gis ñu def ndeysaan waxuma sax def waaye def bi ñu koy def dañ koy def defu nangu defu topp defu mbëggeel defu defu defu defu boo xam ne laa ilaha illa comme yàlla te yàlla moom li mu santaane ndeysaan ku koy def yenn saa yi nga koy def dafa ñàkk pexe suututut allahu akbar ngay gis fii rek am na julli korité boo xam ne bii passé bi gars yi tuuti ñu xeex fii ndax nee nañ toogaay bi daa yàgg nañ julli nañ julli ci biir taw bi ñëpp di kaas am na ci koo xam dafa jékki-jékki mu ne yéen ay autorité ngeen di xaar man autorité day taw ñuy xaar julli di yàlla yi ñëw mu sabet julli di ñëw ñuy julli mais gis nga de ci yàlla la mais xoolal bu doon sëriñ bi mooy ñëw ah ñu ne xalifa général te am mooy jiite julli gi ñëpp dañuy taw kenn du sonn mu doon toog fajar ba yowmal qiyaamati kenn du yëngatu waaw ñëpp teg toog rek waaw miin bu nekk oto bu gaaree ñu ne moom la bu déggee yuuxu yi ak oto bu ñuy yëkkati di daw ak moom ñu ne ñëw na nit ñi xam nañ dellu si waat suñu bopp ci yàlla ñu xam ne yàlla subhanahu wa taala moom dong moo yayoo yenn yi moo ko moom gis nga malaaka yi ko xam suy wax ak ñoom dañuy xëm ak di këpp di rot di sujjóot di ko bàkk moom borom bi subhanahu wa taala parce que ñoom dañ koo xam ñun xamuñu ko ixwaan yi azamatullah wa istihaqahu lil ibad wahdahu màggaayu yàlla ak yayoo gi mu yayoo jaamu moom kenn mooy ñetteel inna allah aza wa jal allazi tus'iqu almalaikatu inda simai kalamihi xawfan wa mubahatan wassamawatu ala azamatiha wa siatiha tarjifu wa yus'iqu man fiha haybatan lahu wa xawfatan minhu huwa almustahiqu lilibada wahdahu falwajib alayna ifraduhu biha mu ne sunu borom subhanahu wa taala bi nga xam ne malaaka yi dañuy xëm ngir moom malaaka yi dañuy këpp di sujjóot ngir ragal gi ñuy ragal dégg waxam ngir tiit ngir moom asamaan ak ni màggee ak ni mu yaatoo di yëngatu di trembler ak ñi ci nekk ci biir ndax ragal yàlla kon yàlla moomu moo yeyoo jaamu moom kenn kon li nu war mooy ñun ñëpp yàlla moomu asamaan ragal suuf ragal jant ragal weer ragal mbindeef yépp ragal kon li ñu war ñun doomu aadama yi ak ginne yi ñooy mooy ñu ragal yàlla moomu is la yajuzu sar'an wala aqlan an yaj'ala lillahi sharik min xalqihi fi ibadatihi mbokk yi du dagan ci sharia du dagan ci xel xel xelu doomu aadama nit ku am xel ak ci sharia ñaar yooyu yëpp boo ko boolee soo xamul sharia sax war nga am xel li may wax li may wax chaque jour ma ne Sénégal am na ñoo xam ne waruñu nekk xalif général wala même bu fekkee jàngoo yow sax am nga xel Sénégal ñëpp waruñu nekk sëriñ bi wala Sénégal ñëpp war a nekk sëriñ kan ma war a nekk sëriñ sëriñ baatu kan moo ko war a moom ku jàng ku am xam-xam ku ragal yàlla pourtant sëriñ yi ñu tuddee woon sëriñ ci Sénégal loolu lañ doon def dañoo jàngoon am xam-xam defar ay daara defar ay jàkk di jàngal jaami yàlla yi di jiite ci jàkk ji voilà léegi nag ñun ñu dem ba affaire bi soppeeku ñu am sëriñ yoo xam ne mokk luñ faatiha wala sax dañ naan alxuraan xaw ma ci dara mu dara ci alxuraan dara laa ci xamul jànguma ko wala waaw lu ko waral mooy nit ñi ñoo amatul xel bu nit ñi amoon xel xam ne ku jàng moo war a nekk sëriñ wolof yi dañu ne faqidu arab yi dañu ne faqidu shay laa yuuti ku amul doo maye kan ma war a maye ku am ku amul du maye léegi nag ñun ñu jël ñu xamul dara ñu amul dara ñu nekk suñuy njiit moo tax lu xew Sénégal ku jóg nekk sëriñ wala Demba Dia lan la du sëriñ Tyson lan la du sëriñ ñooñu laa ñeme moo tax may tudd seen tur Fatou Gueye lan la Cheikh ku jóg ñu seexal la ndeysaan Cheikh ñaata Cheikh ngeen xam Sénégal yoo xam ne billaahi wallaahi wa taalaahi mokkulun Faatiha ñaata ñu seexal leen ñii mu ñu mu xaddamal leen ñii ñu fee ay njiit ñaata moo tax it loo gis Sénégal bu ndemee ba ay mbëri làmb ay musicien ay rappeur ñooy nekk ay cheikh lan mooy cheikh baatu cheikh fu mu doon jóge ñi ko doon def lan moo tax ñu ko doon def dañ lay jël jàngal alxuraan ba nga wàcc takkal la soxna yóbbu la ba seen dëkk ubbi la daara ñu indi doomu waa dëkk bi yëpp sëriñ bi seexal la ne la toogal jàngal waa dëkk bi wala moom moo doon cheikh cheikh yi ngay gis yëpp noonu la leen seexale ñun suñu cheikh yi nag da ngay fecc ba am benn diplôme ñu seexal la wala nga wa nga woy ba am disque d'or ñu seexal la dañoo juutal mbir yi aywa loolu moo tax suñu mbir juutu mbokk yi kon ci xel ak ci sharia sax warul tax doomu aadama juutal mbir yi ay yaj'ala lillahi sharik sa xel sax boo utilisé war ngaa xam ne yow waroo dendale yàlla ak leen yàlla bi mu lay bind kenn fekkewu li ngay judd kenn mënu ci dara su la yàlla rey kenn mënu ci dara li nga war a am kenn mënu ci dara fi mu nekk nii bu la yàlla tegoon feebar kenn mënu ci dara waaw kon nooy bàyyee yàlla topp ñeneen topp koo xam ne mënul la dara waaw allahu akbar wa jamiul xalq ibadun lahu mbooleem bindeef yi ay jaamu yàlla lañ in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rahman abda xoolal baat boobu yàlla wax wa in kullu man fi samawaat bu yàlla yemoon foofu kon nag ñu ne ko malaaka yi la wax waaye mu ne wal ard koo xalaat ci kaw suuf rek yàlla nee na kooku sama jaam la am nga koo xalaat am nga koo xalaat am nga koo xalaat am nga koo xalaat ku ngeen xalaat rek am nga koo xalaat jaamu yàlla la koo xalaat rek ku ngeen xalaat rek sa xel dem ci moom rek yàlla nee na sama jaam la allahu akbar kon am na ku des waaw bu yàlla ne ñëpp jaam lañ kon kay léegi lan kan mooy ba sang bi kuy borom bi mooy moom kon moom rek lañu war a topp ndax ñëpp jaam lañ waaw qaala allahu subhanahu wa taala in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rrahmani abda suratu maryam aya 93 mbokk yi fii mooy li mooy dars tey téere kitaabu tawhid première partie bi fii la jeexee mu des beneen bi ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala li ci jàll bu amee ay njuumte ñoo ngi ko koy jéggulu bu amee ay tiyaaba yàlla nañu ko yàlla boole ñun ñu koy dégloo ak di ko jàng yàlla subhanahu wa taala dëgëral ci sunu tawhid ak sunu pas-pas asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah